dañ ciy sant maire yi mais day doon loo xam ni eh, lu nu yàgg jàmbat la lu nu yàgg a demandé la ndaxte boo xoolee Touba ñu naan la 18000 chevaux ñoo fi ne ay fas 18000 lan mbaam mi ñun la 30000 lan te benn mënu ci am benn identification boo xam ne lépp lu mën a xew ci saret boo mën a dugg doo xam foo koy wëree kon loolu dafa mel ni lu nu amal njariñ la loo xam ni ñun fu ñu ko déggee rek danoo war na daw ba daanu waruñu sax ñu di xaar ñu ne jox ay délai ak i dat ndax day doon loo xam ni nit ki bu jubee di liggéey lépp lu koy aar lu ne rek daa war saa su jógee di ca dox di ci jëm lii nag moom daa doon loo xam ne lu nu bëgg la lu nu rafetlu la lu nu yàggalaat la. jëriñ bi benn bi mooy ki nga xam ne yàlla dogal na identifier na ab saretam identification bi jamono yi nuy commencé di war a wax régler tableau y bi ñu ñëwee fii ci mairie ñu di ci waxtaan man maa ne leen woon recensé nañ fi ay tableau séddale fi ay tableau benn mosu ci am njariñ léegi nag pour ñu mën a am tableau yu am njëriñ da ngeen di mën a am ab logiciel bu ngeen mën a dugal tableau yi kii jël ki moom tableau bi indi carte d'identité ak adresse am ak numéro téléphone am ñu door koo jox plaque kooku bu boobaa plaque am dana saa ko soxlaa rek dan boo gisee numéro bi rek saa soo ko tappee ci lu mu mën di doon rek da nga mën a xam ni kii moom moom plaque bi loolu njariñ la ci ki moom saret bi njariñ la ci client bi dugg ci sat bi bu ci wàccee dara njariñ la ci ki nga xam ne dafa yor sat bi dem ba ci yoon yàlla dogal am ndogal am ci moom mu évanoué wala mu am jafe-jafe te mënuñoo xam kii kan la kon njariñ yi bari na lool mais nag li ëpp ci njariñ la day delluwaat ci borom saret bi ndax dana tax ki ne ci secteur bi te bokku ci ñu man ko cee génne lii ñu commencé wax ci xale yi nga xam ne moom la Touba Mbacké gépp di jàmbat su boobaa dana deñ ndax moins de sept ans ñooy fii ay saret léegi ak moins de huit ans mënuñu ci saret yi dara dara accident toujours parce que koo xam ne yow li nga yor mënaloo ko dara bàyyi ko fi mais bari na fi garas yoo xam ne nag moom ay gone nekkatu fa léegi li ëpp ci mooy sar di nga xam ni bokkuñu fenn comme ni ñu ko waxee fii ci réunion bi. ndax am loo xam ne ñun sëñuñu ko mën na nga fi ñu toll ginnaaw loolu loolu man ni nga namee ko ci saret yi pour wàllu accident moom il fallait que nga jéem a xool sapeur parce daal accident yi moom bari bari na ci sareet yi njombe tim bari na ci ndax fi ñu toll nii li ci ëpp jaaxal ñu bari mooy ñi ci infiltré dugg ci te bokkuñu ci. loolu xëy na amoon déggoon nañ ko fi benn laa ci jotoon na dégg xaw ma ñaar mais loolu sax du accident ab xeex la woon te ci wàllu sareet yi la jëm. man loolu moom dégg naa ko mais accident boobu mënoo mënoo mënoo joxe estata yu ndax am na ci loo xam ne yow doo ko xam ndax doo ko yëg bu dee ku ku ñàkk ba kanam doo ko yëg. waaye nag danga mën a xam ne bu histoire amee ci sart diggante sart ak borom ja wala diggante sart ak keneen bu ci accident amee di nga mën a xam ne kii moom bii am nga ko comme lii ma la wax ñaar fi amoon ci wàllu loolu ñu defoon pël futa bi ak kooku amoon mbaar ya loolu moom leer nañ moom mu leer nañ ni ak ñàkk bakkal pexe yi moom day yomb ndax bu fekkee yow gaaraas nga yor immatriculé sa saret yëpp ki ne ci dëkk bi te amul immatriculation yomb naa jàpp ñoom saa su police ci terrain bi rek mu saafarawu ndax ginnaaw tableau mooy tax ñu xam la boo amul tableau bi ki la gis lépp lu mu doon jiñaate mën na la koo jiñ kon ki jub dana dem wuti tablo wala mu dem cab gaarasam ñu wutal ko tableau loolu mooy li wér dégg nga la wax lan ni la durant li tàmbali tey ba le ba le 30 ku fi am ku fi amul tableau le premier juillet saa suñ dajeeg yow dinañ la immobiliser kon déjà képp ku ko dégg rek mën ngaa dem wuti tableau tableau bi nag boo dégg ñu maire da ko subventionné parce que bu ko doon jaayee li muy jar dana cher mais daf ko subventionné ba bàyyi borom sax ñu mën koo jël 1000 francs kon loolu ndimbal la ci ñun ndax xam nañ suñu néew doole mais nag loolu du bu tax du tax ñu yaakaar ni ñun danoo war a toog rek jàpp suñ bopp lu ñu sant ñu ni mënuñu ko nit ki lu mu bon bon bu doon tableau d'immatriculation oto yaa koy wutali sa bopp te boo demee yaay def say frais door a wut dox say investigation kon loolu lépp bu amee ñu ngi ñuy dimbali te lépp lu ñuy def nag dañuy woo waxtaan ceeg ñun ba tënk ndax lii man conseil municipal la maay ki ko njëkk a ki ko njëkk demandé pour ñu identifier saret yi teg leen ci kaw yoon te loolu meer rek ko war a def maire rek lañ ko war a def plaque bi moom plaque bi moom da du weesu nga indi sa carte soo indee sa carte d'identité ñu jël ko ak sa numéro téléphone ndax carte d'identité adresse da cay ne aussi nga wax garas bi ngay daw ndax nag bu fekkee da ngaa jóge ci garas boo ñëwee ñu identifier la dangay joxe sa carte d'identité joxe sa numéro téléphone joxe adresse su garas bi ngay daw ak adresse bi fa nga dëkk loolu lépp ñu dugal ko ci biir su boobaa lu mën a xew ëllëg da nga yomb a gis